muy que muy Siteu bu Ngor mu jëm fan arène nationale diggante ma Alioune Sèye junior tey ma ànd ak sama jinne caméraman xaritu yàlla Ibrahima Khalilulaay Khalil dafa mel ne tante bi la fa nekk doxal ñooñu dem ma xool doxal ñooñu dem ma xool. Fall yaram ziar naa la. delloo ziar bu wér gaan sant yàlla. laal sa billaahi si te de. barki yàlla ndax mafia yoo fi nag trawo yëpp si te kese nag. xam ngeen waa ji ngeen am Alioune day xaar xale bu ndaw bi la de billaahi. kay déggu màgget la day xaar. lu bari. nee na moom sequt leen ba ngeen tëdd. ñun sequ nga moom dara du dul rey nga mu dee. billaahi. barke alxuraan. Alioune Seydou dafa bokk si yoon wi nii rek mais mooy loolu de. barke alxuraanu karim. naa taxaw samp jaaga diggante moom. si da amul lu muy ragal. fi mu juddoo ragal dëkku fi. amul lébu bu ragal mos nga gis loolu yow. waaw. Siteu bu ngor. barki alxuraan amul. waaw amul de. Siteu kese. Aliou Seye day xaar rek gannaaw. billaahi barki sëñ Bamba. dina leer si kanam. si kanam dina leer. Ah. léegi léegi yàggatul de. tentam bi ba pare. booy bi daa tent. yaa booy doo def sa bopp nit. Fane yaram si loolu. ah sant yàlla. da nga laal sa désir. ah gis nga de c'est très bon waral. a bu ngeen dul yàqale moom la dañuy topp ñu. Alioune Seye de junior day xaar bu bari. kon nga day xaar. ci biir géew dëgg la. ci biir ci biir géew bi. li nga xam ne ñun mbër lañ indi ñun. moom lan la. moom mbëru gaale la. bu baax. waaw Alioune Seye si nangu waaw. day xaar. lu bari. yow ah, kii kii ala Ablaye Mbaye la wala kii kii Ablaye Mbaye la wala <laughs> kii Ablaye Mbaye la wala. ki mooy Fallou bu Sida. waaw borom dëgg bi waaw. borom dindi la demee nag ñun si tere la ñuy topp ñun. ngeen kii naa bu ngeen du lekkale de. waaw ah, la demee nag xamal rek si tere kese la ñuy topp ñun. la de. Aliou Seye si ndox la. Aliou Seye ndox la. Aliou Seye xam nañ ko bu baax yàgg nañ seen combat ñun du ñore soob si si hasard rek dañuy xool ba pare doo koy dugg si yow. Aliou si combat bii nii Siteu bu nga ñëw samp jaaga. waaw yow li neex si combat bi Siteu la eh? barki alxuraan karim waay la neex si daa koy def. Aliou Seye li mu fay def. waaye Aliou Seye dinaa la ndox la moom daal la wax naa ko avant grand combat bi barki alxuraan ndox ma ne Aliou Seye ndox la jàppal ni ndox la. Ah, peru daal bi ah. peru daal ma dégg booy di ko wax rek yaa ma gën la demee nag peru daal yi booy koy wax ah ndox la ndox la ndox la waaw. xam na la demee nag ñooy borom dañuy fee rek moom bu ñuy topp di lab wóor na yàlla bu ñuy topp di lab dëgg la ñu dama ko gis nii barki yàlla loolu si daay borom ndox. bàyyi la lébu yi. xam nga am dërëm daan am. waaye yow dégg ma la wax waaye yow. non da nga comprendre sax ay xool mu daanu sax dafay am nga naa man ay xool mu daanu affaire bi sida la de. yaa ngi gis waay yow li sidaay borom beeru rafet. li waay ak a jàpp sida. kan la waay sidaay borom. boo dégg ñu naan lan beer Aliou Sow naa ko ko nee naa ko Aliou Sow xool moom xool ma ko lii beer sidaay borom bàyyi la moom bul soxor li nga def ba tokkuñ sax xamoo ko gaxeen nga lal nga laalaake. Ah. gaar nga baal ma loolu. nga baal ma loolu. <laughs> nekk dimension rek la ñuy nekk gaan di rëmbi rëmbi waaw Aliou Seye laa dem stade lañ séq ak moom stade dañuy dem léegi jël ñu séq ak moom dem stade lu ngeen séq ak moom comme ça bu ñëwoon fii sax moom rond-point sédiment sax day daanu waaw bu fa taxawee sax day daanu dem stade lañ séq ak moom laa la wax kase ñu may Alaya Taraw bi ñu ngi la bëgg a xam ngeen Aliou Seye Junior ba tax ngeen. waaw Aliou Seye Junior day xaar Aliou Seye paa la bañ tollee seet diggu doole war a entraînement entraînement kii xale bu ndaw la Siteu mu nii xale bu ndaw yaa ma gën a xam waaw. waay waay koo gi mag ngaan koo jamono Tidiane Faye la Tidiane Faye ñun dañuy suivre làmb de la demee ay tonnerre yooyu noonu la doon bëre ba léegi. waaye Siteu di xale. xale bu ndaw la nekk si yoonam Aliou Seye du sax moo ñuy téye barke sëñ Bamba Aliou waaye yow bu xeexee Aliou Seye ñemewul xeex ak Siteu sax Aliou Seye yow Aliou Seye gis nga ñaar ni ko bindee madul quoi bu xeexee day dóor mu daanu bu bëree day daanu force la loolu amul sax ay ñaan yàlla force yow ne ñu la woy ñoo gën a féetee xale waaw ñoo gën a féetee xale loolu kase la fan nga wekk loolu jàpp daan ñibbi incha rabbi man man. jàpp daan ñibbi rek. Aliou bu mag baa ngi noonu. yaay waaw. lan lay waajal waajal rek. noonu ko koy Sika Mbaye bu mag bi. gis nga naa la naa la la. bëggee naa leen Baye Fall yi Fally si loolu. delloo ziar. ñëpp jaaw. non non am maa ah, moo la. yaa ko ah? si dee ko sañ si ta. billaahi moo ko jar barke alxuraan. li ko jar. kese ko jar. li ko jarul. jaru ko. day daw rek billaahi. day daw rek xale la xale bu ndaw la. moo soxla quoi xale la. la. moomin la. billaahi xamul dara paala. bilaay moom la ma bëgg a laaj fan ngeen yëkk ne Alioune Seye Paa la boo tax ngeen sikko def ne Alioune Seye Paa mais Paa la moo tax parce que Paa la parce barke alxuraan walaay heure bi si jàkk muy julli mais instant yi li moom lambu xale la mais dañ waxante dëgg tamit xale bu ndaw day daw rek amul arrêt. arrêt yàq nañ ko Siteu kese la ñuy topp amul arrêt day daw rek Mbappé loolu doo dégg loolu. Ah, doo bisay bët xool yow ala yaa yow ñëw nii. Ngor Yoff Wakaam eh lébu yëpp amuñu arrêt amul lébu bu am arrêt day daw rek Mbappé arrêt yëpp yàqu ar yëpp yàqu na. taw laa xula du góor yàlla. ba tawal Siteu dóor ko ba mu toog naan kan jéggalu. Siteu lañ waxee. xool koog caay ji xool koog caay ji xool koog caay ji xool koog caay ji xool koog caay am na lépp. xale doxal tuuti ñëw ñu xool. su ma ni gis naa fi fëgg la bu ngor. ñëpp gis naa leen gis dafa mel ni gars yi dañuy añ añ nga gars yi dafa mel ni Baay Faal dañuy añ gis nga mais Xalil desaan war a bëre dimanche samedi samedi nga ñëw sa seex sa doom day mais mais mais fëgg la fëgg la fëgg la fëgg la ma seere ka fëgg la ñëpp mu mat fin rek ñëpp xam na yaa ngi war a yaa ngi war a bëre ah sa seex di waaw tawfeex rek waa Guédé tawfeex rek yaa nañu sunu borom defal tawfeex suturaal ñu loolu la ñu ñaan. raasi lambër war a bëree sa dimanche sa naataangoo di bëri nga bàyyi lépp ñëw. waaw parce que deret la waa man Siteu suma rakk la suma deret la yaayam sama yaay xa boot xama sama lépp la mënuma toog di ko setaan barki maam Seera Fall bu doon dee la maa koy njëkk dee si xare bi barki Serigne Cheikh Fall borom digal. décision ngeen am ku xam-xam ne day xeex de bëri. ñor du dërëm kooku mooy loolu xam nga xale yu màgg def jar ak mag moo xam ne mooy loolu bokkuñu. kon ngeen sukkandiku ne Alioune Seye mag la. mag la parce que tamit moo mag booy bi Alioune bi muy bëre booy bi xalaatul sax bëre booy booy booy muy jàng école bi muy bëre booy muy jàng école bari Serigne Bamba. ngeen ne cocktail. molotov fu mu daan tàkk <laughs> ñëwal ñu dox ñëw. borom jinne taxawal borom jinne taxawal. non non taxawal xalil borom jinne taxawal. borom jinne yi de borom wakaam rek. borom ngor wakaam yoo fukki penc yeeg ñaar. borom maa ngi fi alhamdulilah. tey nan nga waajee sa poulain muy Siteu bu Ngor. comme d'habitude comme niñ ko doon waajee rek. conseiller ko dalal ko ne ko ki muy bëreel mag la moom moo gën a féetee xale. te waaj day ñëw taxaw te xam nañu ki ñu suñu mbër moom incha allah am nañ ci moom yaakaar entraîné na te am na dal bu dee mbooloo bi moom macha allah am na mbooloo aussi. ku xam ku xam Alioune Seye junior xam ne mbër la boo xam ne day xeex day bëre est que xalaat préparé ngeen si xeex beeg bëre. préparé nañu côté yëpp préparé nañu côté yëpp mystiquement physiquement préparation lépp xale la nag ki muy bëreel xale la. yaa nekk ci préparation mystique. parce que booy bi dañu yàgg depuis mbapat la sama rakk la sama lëpp la man nag maa si gën a nekk xale nag. waaw am nañ ci yaakaar tamit am nañ si yaakaar bu neexee yàlla. xanaa mu daan. Oh, mun na nekk déedéet fan lay mujj da koy jàpp mu daan ko xam naa si dara su ko jàppee rek mu daan ko wala mu wër ko ndomb lu leer laa la wax waaw parce que waa ji day taxaw. dina leer si kanam. allah merci beaucoup. <laughs> Khalil ancien gloire la ancien gloire si loo de. waaw maa ngi lay siyaar di la màggal. naka tey. waaw sant bu baax mel ni bis tuut de weeram borom laaj toll. waaw waaw fi mu nekk nii kay taxaw nañ dëgër moom di ñaan suñu borom suturaal may ñu ndam rek. ni at ni ngeen waajee Alioune Sèye Junior. waaw waaw mais Alioune Sèye Junior dañ koy taxal lu metti rek yow xam nga Siteu bu Ngor Siteu géew ba la gën a mane sax yii yëpp garaawul mais bu demee bañ tëj barrière rek moog Alioune Sèye kase non bàyyi nga xam ne bàyyi nit am na mbokk de. xam nga ne Alioune Sèye dafa mën géew sa bëre nag ndaanaan lu ne. mën na géew mais booy bi booy bi da koy làmbal loolu moo lool mooy wax gi quoi moo tax day ñàkk. jamono yi muy ñëw da daan kon bii day fas yéene làmb. bii day làmb sa billaahi parce que daf ko jaral quoi te dafa jaral waa Ngor waxaam yoof travaux yëpp si biir waaw dëkk lébu yëpp ñëw wàcc se ku ñu wàcce gan gi kii ay saraxam bariwul billaay bariwul alu sa combat bi Siteu ñëw samp jaaga xeex non Siteu déggoo li ma lay indi mbër bu complet la quoi booy bu ñeme la lu su fa saa rek fekk ka fa te xam naa duñ duñ yegg foofu sax benn jooy la koy jooy mu tëdd ñu dem ñibbi. dina leer si kanam. billaahi. dégg nga nee na li kii Alioune Seye la. nga ne kii la ah, eh. Alioune Seye moo ne ni yow. Alioune Seye junior moo na waaye lakk lu moo jafe ñëwee ndawal na waaye lakk lu wante ñëwee ndawal. kii bi nga ko sumee ba bàyyi ko kay taxaw ni am na problème bu mag ngeen problème sérieux problème barke borom Touba laa lay waatal booy bi xam nañ ko xam nañu ñun si ta óolu nañ ko quoi gëm nañ ko yàlla mel boo mag waaw mais si ta moom xam loolu noonu man laa la wax am na lu ma dégg si jabar Aliou Seye mais du ma ko wax si eh, eh. ma la baay baay bu ngor du dara ab la am na lu ma eh, dégg si jabaru Aliou Seye waaye du ma ko wax dama koy bàyyi si biir ndax si te digaluma loolu man si te sutura rek. amul yooyu noonu sax ama ma may toj stade bi ama ma may toj stade bi kutu mbax kutu mbax rek jëriñ. loolu ay quatre vingt maat ma maat ma ko maat ma ko. Barse Fall. one two three four kutu mbax ay eh waay kutu mbax rek jëriñ. looloo mag. si te kase. bi. <laughs> mais si yéen wala si kam oui waaw waaw gis nga ne ñu ngi nii rek daa si loo ñuy sant yàlla bu baax xam nga ay at ay weer ba dem bañ ne ay heure si des waaw ay waxtu si des mbir yàlla ni la tëddee quoi ñu ko doon waaj ay at ay mois ay semaine tey heure si des di ñaan yàlla su ñu suñu jarbaat suñu xarit suñu rak yàlla suturaal ñu tam may ñu ndam yàlla ñu ngi lay ñaan yow mi xam ne yaay borom sutura yaay may ndam ñu ngi lay ñaan nga may ñu ndam si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Siteu Ngor dafa jóge si Bébé ñu gis li mu fa indi woon keroog xalaat nañ combat bii ni mu indi loolu lu raw loolu. non lu raw loolu la ñuy andi lu ko raw la ñuy andi contre Bébé Bismi fàtte nañ ko li suñu kanam la ñuy wax combat si kanam mais du combat tay bi wallahi al azim combat dama kaa laaj mu ne lu raw la la leen di indil non Aliou Sène mag la mag la te xam ne xale lay bëreel kii judduwul wallahi lazim judduwul xale bu ndaw la xale bu ndaw la dafa ko ñu dara si làmbare dañu ñaan yàlla suturaal ñu nag fi mu tëg bërëm bëtam roi des arènes yàlla suturaal ñu bañ yegg foofu incha allah xam nañ bu baax la ñu koy liggéey moo ñu koy may entraîné ak doole ut doole moo ñu koy may mais du mystique du dara mais liggéey moo la koy may pour nga yegg foofu si tabu ngor yaa na la ko yàlla defal si barki yonente bi bi xef barki Cheikh Saad bu mi ma yaakaar ku xef doo gis jëlla bi ah. jëlla bu gaaw la nar a doon incha allahu rabbi njool mi la wala cité la njoo njoolu cité la engagé engagé la amul xalaat engagé ngeen client bu ngeen dul yàqale na kan kooku man rek dama ëpp si moom barki Serigne Saliou Mbacke benn jooy lañ koy jooy rek kanaara la billaay seex moom sabala ma calaa ba cee ba la kanaara la Eh, bu arbitre sifflé lépp leer Siteu rek billaahi jërëjëf bingo. non dagg yaram bëm. Siteu rek la ñuy topp sukaani mukaani sukulee leer dagg sa yaram xotti ko ba mu set. Siteu rek la ñuy waa Pikine dañuy xaar. Alioune Seye moo nekk noonu di jooy. koo ni ngi noonu. <laughs> nee ko Alioune Seye noppil. nee ko Alioune Seye noppil. nga ne kan mu noppi. waaw Alioune Seye daa war a noppi nga tuddee na na na denc yuuxu yi bas kanam. parce que kanam dañoo yuuxu moom rek instant bi na réservé wu rek boo yeggee sa gaale nga yuuxu bu la saan bi nga gis ni foofu la Siteu bu Ngor nekk gis nga ko ngi noonu génnagul nag xam na mi ngi def ay xarfa xuufaam ati déebaa déebam xalil lii lii ndeysaan butéel la nee naa leket bi def na dugub def na ñaari parfum yu bokkul leket bi dafa def ñaari parfum yu bokkul <laughs> li li yëpp si làmb la li yëpp tegtalu làmb la xalil xalil gis nga loolu li yëpp tegtalu làmb si ko mbay bu mag baa ngi noonu ndeysaan gis nga ko mu ngi noonu nee naa la moom ak Siteu bu Ngor mbapat la ba arène gis nga leen gis nga ko mu ngi noonu tey njaxasu Baay Faal bi la def nee naa la tey ngay gis lu ne fii Ngor gis nga ko gis Baay Faal Siteu yaa ngi noonu nee naa la cey làmb at li mu làmb am na lépp ndeysaan làmb am na lépp nee naa la xale bi bu génnee ba ngor topp fukki ci yeeg ñaari dar ko. xale bi ñu ngi lay siyaar. kenn du yow. barke ni ngeen doon waajee ni ngeen waajee tey bokkul. non nu ko raw lañ tax karaa gisoo ñu yow. maanaam taxawaayu pare lañ taxaw de. karaa bi benn booy. moom day xaar. lamb ji lamb maa sibul sax ba léegi lamb teg jàpp la te teg nañ ci ba mu jeex teg jàpp. mën mu ne sequt ak yéen bëre du ma leen ak yéen bu ngeen tëdd. moom mënul xeex handicap la buy yoor di toog. mais lu raw li mu indi doon Mor mënul bëree bu ndaw bee ñëw de borom ngar. wax baaxu yàlla na jàmm yaa ngi. xanaa nga si xeex bu sax. xeex day am bëri dóor la gars yi wax de te loolu day am incha allah loolu dama am sarama dina leer si kanam. incha allah amal jàmm rek yow. Xalil kii fii lañ gaare moto bi yaay mu ne nañu fay. mbër mi ngeen gis fii dañoo gaare fee moto bi yaay mu ne nañu fay nañu fay. <laughs> loolu na leer sama yaay amel ngeen ko 2 millions. naka Sénégal gépp dégg ahlu làmb waaw yéen a gaare si buntu këram mu fayeeku leen da ngeen ko fay nag ah, yow la yaa gaare mu yéen ñaan ñëpp la génnoo si génnu si yéen a yem rek si ne sant yàlla gërëm Baye Niass sant yàlla gërëm Baye Niass ba tey gis ñu la dégguñu la ba tey ji Siteu bu Ngor di waaj ba pare diggante mu Alioune Sèye Junior nan ngeen waaje waaw niñ daan waaje rek waaw di wax ne bés la comme bés yëpp waaw di ñaan suñu borom mi nga xam te ne moo am kattan am sutura mu kattanal ñu suturaal ñu may ñu ndam lu sedd guy tey may ñu ko suba te lu mën a nekk la de jafewul suñu borom. damaa nag Alioune Seye mu ne yéen bëre duma seq yéen. waaw loolu waxi mbër la rek waxi mbër la rek Alioune Seye day wax waxu mbër rek nangul nañ ko ay waxam nag waaye sa géew ba leneen ay xew de. waaw mi ngi mu ne. Ngor at Waalo xamante nañ. waaw loolu histoire bu yàgg la Alioune Seye numéro 2 bu mag bi. booy bawol dóor na ko ba arbitre dugg seen diggante moom li mu wax xam na ko waaw histoire la. yow nga duggoon fa. ñu duggaat fa taalibe seex jàpp bi. duggaat fa. noonu la demee histoire la. histoire la de ñoo dominé gum. bilaay ñoo dominé day xaar. 2-1 la. day xaar. bilaay tey day lay lekk 3 wala 3 day yàgg. du yàgg sax doole yi bokkul. doole bokkul xale mag la. waaw bilaay xale mag la doole yi. am xeebu sax. lu lu si am si moom lay metti bu xeex amee si moom lay metti bu amee si moom lay metti na bàyyi loolu xel de lu leer laa wax bu xeex amee si moom lay metti bu bëri amee si moom lay metti si loo man maa ngi sama ruq rek waaw xam naa ne sama benn tànk sax mu ngi si paree bàyyi làmb quoi. loolu si xale parce man niñ may jox si làmb du ma du ma ñoom. man dama bëgg ay combat deret gi day sottee ko ay njaaytin yii barke Seexu Tijaan njaaytin ay ñooñu laa war a bëreel man ay Pokola Balde boo yi di suusu lu ñu fi def dafa ñu fi dara ay kaw gourné ay farouus nañ ñëw ñu bëree defu ñu fi dara li ma fi def defuñu ko fi billaahi maa ngi risque palmarès fuuf. da nga ñeme risque. njaaytin laa gën a bëgg sax comme que moom day xee moom laa gën a bëgg barke alxuraan combat rayante laa bëgg. billaahi wallaahi. barke alxuraan su ma jëlee ñoo xam ne du dóor kat barke Seexu Tijaan. bu ma jëlee ñoo xam ne du dóor kat mënut te xeex. na jël njaaytin. njaaytin booy booy fi nekk bari nañ bari nañ duñ jeex farouus mënut a daan sax. bulldozer barki Demba Ndiaye su ñëwee ma daan ko ba mu jaaxaan jéem na bari nañu ñu ma war a bëreel mais man dama war a bëreel ndaanaan yi ndaanaan yi ñu ñëwee du max ñoom te si bëreel ba mu paree ñu ne ma du woon max moom ama mënuma comprendre fi ñu toll dafa mel ni dafa am lu ñu la dee. non deewuñu ma dara dafa jot ma bëre ponkal yi barki yàlla ñu may jox ne du ma seeni morom barki yàlla dama leen ëpp doole ñii dama leen man dama leen di gaañ rek ku ma si bëreel dama lay gaañ barki yàlla ay ay miskin lañ dañoo néew doole billaay dama leen di gaañ parce miskin ñi ay yatim lañ xama doo comprendre quoi waaye man borom doole laa am bigli yow gis xanaa géant laa deux mètres laay laay si kaw gaan ak leneen si suuf barki noonu la demee ñu lay bëgg baax a baax barki yàlla day bu baax boo si loolu waaw dal jaamu rek nuy waat àdduna nuy waat ñëpp nag waaw di bëgg da bëgg Idy ak caméraman bi nice leer na yow nante nga. la ngaa sawar de. ak gisoo. tee dem stade jëlee ndam li ñëwaat. bilaay. non man dama lu ma leen bëgg laaj. yéen lan ngeen yabe Alioune Seye Junior ba koo wax mu ne yaakamtee dem stade jëlee ndam li wala foofu xaar ngeen ko jàppee wala jeu magique ngeen ko jàppee wala lan. Alioune Seye day xaar dañu kaa gën a nekk xel ndëkk. cocktail molotov bi bu dalee si kawam. cocktail molotov bi bu dalee si kawam. loolu da koy massacrer jóge fa. bilaay bul sax xalaat muy yàgg. amul arrêté. yàgg. kii arbitre bi moo ko fa bàyyi bu arbitre bi sifflee dina xam ne mag la xale la te yaxu daaw la yor yaxu daaw. yax am daaw ak daaw si mooy wu ren bi boo gisee yax bi nga xam ne yax wu ren la dem na Maroc jëli ko ñëwaat Aliou Seye yaxu daaw nga da ngaa màgget xale bi day jàpp nga taxaw mu duma nga daw mu duma la nga bëree mu daan la ba sëñ Fallou. loolu na ñeme lu métti. Aliou Seye gën ngaa biree si làmb dañ laa gën a nekk si yoon gën laa bëgg li ñuy def gën la koo ñeme yow da ngay xaar rek fi ñu toll nii bul def dara taxawal rek xaar ñu jàpp la faxas la sandi la yëmbal. bu def dara taxaw xaar nga taxaw xaar rek ñu jàpp ko jox ko waa yëmbal ñu partage ko waa géej waay tous nag si tabu ngor ngay wax sandi ko yëmbal ñu partage ko géej waay ñoom ñu xëccoo ko seen biir bu jeex tak ñun duñu lekk nga avancé waa gisoo 13 août bu jaan ji ñëwee caatu Colobane gisoo bu jaan ji ñëwee xam nga da doon cof di bàyyi mais bi day maat sandi fee ba sëñ Fallou. xam nga caatu Colobane. ah xam naa ko nii rek xamul làmb nii rek. feree na boo yëpp. waaye newul kenn caat yaay doog am làmb yi nga doon bëree ay làmb la treize nga xam ne yaay doog am làmb nag. ngor dañ maa yu nga xam ne am nga làmb. ngor dañ maa yónni yaakamti ma te jaan ji fi ñu toll nii dafa màgg. ba sëñ Fallou yow bañ toll si loolu. bu la treize. nee na jaan gi du ji cofatul bu cofee tey gaañ léegi day maat bàyyi fa dangar dem ba sëñ Fallou xale màgg na jaan bu ngor a fu mu tourné dañ naa maa bi dañ na léegi jaan gi la ko jàkkaarloo woon ko ko ne ko jaan jaan nii billaay mu bëgg ko day xeex mu bañ day xeex parce que fii boo xoolee jigéen ñi sax dañuy jure xale yu ndaw yi nii sax boo leen génnee dañuy jure kon moom bu ñëwee moom dina jure jure jure jure jooju de suñu mairie sax ñun dañuy jure bu mairie du jur xale yi du jure ñun mbëri la lañ war a def kon. waaw yow paa yi kañ fi toolu nii gaañ nañ la bu yàgg dem. ci faal nice. télé boobu nga xam ne président Macky Sall lay wane. ma def nii wala ma def nii. xam nga ko doo ma jël ah. ma taxawee doo ma jël de. wala sant rek. foo nekk. waaye maa rek liggéey rek làqu rek mooy loolu. tey da ngaa da ngaa laal sant. waaw yow nii rek xam nga. doomu ndey Big Mama amul ragal. du dara day xaar déggoo ma de combat bi waaye yow combat bi gars yi Aliou mu wax noonu la day soob rek. est-ce que day xaar te de dina daanu incha allah. maa ngi tegal ci lépp. Aliou Seye dàqu ñu xeex dàqu ñu bëre ah. wala boog ëpp ñu fit. day wax lu ko neex Aliou Seye waxoo dëgg yow. waxul dëgg kooku màgget la kooku jamono 1960 la. ñun ay xale bu ñu bu ñu arrêté si ginnaaw diggante Ngor ak Ikiri fi ñu toll nii si deux ngeen tollagum. tey mooy troisième. mooy troisième bi noonu la fay defaat rek day daaraat rek dem. ndax duggoon na fa daan Alioune Seye. waaw Big Mama dugg fa daan fa Taalibe Cheikh. surtout ñëwaat di fay taxawal. ah Ngor dugg fa daanu. waaw boobu rek foofu la yem. ñun saa yu jógee foofu noonu dañuy am ndam incha allah rabi defet boobu rek la am ci ñun te jeex na maa la tegal lii. da ngeen di marqué troisième victoire da ngeen di wala da ngeen dem te man dox bi RTS maa ngi ñëw te bu ñëwee dama leen defal lu leer. ponkal da nga am foofu maa ngi nii pare naa gars yi dañuy delloo avance rek. yow yaa delloo avance nag. yow xam nga ma. Ah, yow jox ñu sa sa diggante ba ba Sa Thiès. Ba Sa Thiès. non non loolu yëgu ma ko de. Big Mama moo ko yàq. boobu daa nu mu demee woon rek mais combat boobu daa fekk ma jóge ci feebar. noo déglu ma fils de man fils de Ibou <laughs> kooku maa la ko gën a xam fuuf kooku xam na kan mooy RTS doful dañuy tase ci àll bi. waaw déglu ma rek. daa am ci lu ma jóge woon damaa jóge woon ci feebar ma ñëw matul 10 jours sax ñu wax ma combat bi paa bi bañ. noonu la fa demee waaye nekkul pour man bu nekkoon man rek dama koy bëre. xam nga rek ñun paa bi la topp man ñun ñu wax rek loolu ñuy def waaw yow xam nga bu baax yow xam nga ni ñun moom RTS moom xam nga ne pare naa bu ñu ma joxoon avance suba suba sax ma bëre ngay wax nii instant bi loolu rek laa bëgg instant bi yow xam nga ma bu baax xam daa pare pour bëre te wax naa gars yi nag sita day daan ñu bàyyi ko mu ñëw dañuy fanaan stade xaar bu fëgala bi mu demewaat noonu ñu soog bu bëree yow rek ñu ñu meñcee ko loolu du problème Siteu na ñibbisi rek ñu xaar foofu foofu gars waaw ñu ñëwaat rek tegaat ko ca. ancien bande kalla waaye yow fils de bi mu ngi sama ginnaaw sama doomu ndey. ancien jël alal jàmbur gi nga dañoo jël bay séddoo fi ñu toll nii <laughs> dañoo jël bay séddoo. li man na waa ñàkk mama. waaw waaw waaw waaw. mbélo ngi wala wala ngor. waaw boo ci wax rek ñaar yëpp. waaw boo ji wax rek. si loolu sant yàlla bu baax. non ah toogaay bu métti bi la rek. géej a tërën bi moo tax ñu xaw mel ni ñoo xam ne ni mooy loolu mais buñ ne moom. xam rek dañoo nekkoon si blessé rek. ngeen ngeen di waaj. yow dafa mel ni duggoon nga fa am fan dam tey nga war a yóbbuwaat si tabu waa waaw dañuy dogal rek ñaan yàlla rek yàlla ànd ak ñun rek loolu kese la instant yii def nañ lu ñu war a def yëpp yàlla rek la ñuy tal yàlla moom moom ndam nag yàlla ñu yàlla may ndam. waaw làmb nag làmb loolu la. xaw ma ko sax jàpp ma ko sax. booy bool ngeen départ waaw ndër bi la mais loolu dara làmb la rek suñu adversaire moo nekk foofu rek waaw. yow dugg fa. déet daan fa taalibe Seex. tey nga war faa yóbbuwaat si tëb ngor. waaw di ko ñaanal yàlla rek comme li ma la wax rek instant nii wax moom jaratu ko bu baax buñ demee ba ñëw ñu door am lu ñu wax waaw mais instant nii yàlla rek la ñuy tàllal loxo mu may ñu ndam bu seddu guy. war si lu mu ne. waaw ñu ngi nii rek comme daaw ne gars yi moom man moom damaa xam nga nan laa war a tee wax sax. dama am commune boo xam ne Khalil nee na mbër boo mënee bëri di dóore da ngay naqaree ut adversaire dafa man moom dóore moom kii wax na man moom damay yooru ab bi pré ma fajaru dem. <laughs> waaw waaw. bilaay méttiwul man dama gars yi jël gars yi ñooy comme ñan. non adversaire yi moom xam nañ seen bopp gars yi moom ñu war a bëreel bu ñu waxee a man ku ñëw baax na instant yii nii de yow Idi ku ku ñëw rek baax na ak ku munti doon garaawul. waaw balaa neex dëgg nga ne nga ne diw at diw diw nañ ñëw ñu bëri. ko instant boo laajee gars yi dañuy foog ne yow yàlla da nga leen di waajal kom li ma la wax rek yow ku ñëw rek baax na. gis nañ nag gis nañ nga wàcc. waaw no comment faire. bi nga ma xool 5. 5 final waaw jël yi laa jël ñàkk ñaari. ceeb bu Joal la ma daan. ak eh, nu mu tudd ak ñangar. ñangar wen waaw. trois yi nga daan <laughs> laaj daan sax eh, booy nu mu tudd waa waa kii bi maa ngi fàttali mu ne lendemain korite ba si suba sa waaw maa jël foofu noonu si kan laa ko jëlee sax. Eh, waa waa bonje bi waagaan waagaan bu bonje laa jël ak si kan kan laa jëlate sax ak feneen nu mu tuddati suñ ginnaaw foofu noonu euh, fu ñuy wax ni buj buj waaw suñ ginnaaw benn booy bu dëkk côté boobu boobu laa jënd. boobaag léegi yaa ngi for. waaw tuuti tuuti rek sama saison neexul neexul boo xoolee blessure yi xaw a bari quoi moo tax. waaw neexul. waaw cinq final loolu du dara. dara la day wallay taala neexul yow xam nga ne loolu neexul. billaay wala affaire bi nu mu demee la nii rek. Ah. waaw billaay. la nañoo xaar le retour de Big Mama. waaw bientôt si mbapatu nawet di laa bëgg a tàmbale. waaw i palmarin yi. Ah. xaar leen ma foofu de. dama teel a tijji man du ma tëj sax. Potisele dina leen raaj. Potisele man. Potisele dina leen raaj. saa yàlla nañu yàlla may ndam tey bi say dugg bi. biñ jàpp. biñ waaw mu ngi ñu ngi mar. Ah. mu ngi mar waaw. gaa yëpp a ngi mar. xam naa ñu ngi nawet en attendant léegi ñu ñëw. non damay damay dem. daa bañ a dem tool moo tax mu ñëw. <laughs> Idi bàyyil tooñ waay Xalil xam na ne damay bay. <laughs> baax na comme Xalil moo ko seet. tout droit. arène nationale. dem jëli ko wax. léegi nag. Jérôme ça va. ah mais bu baax ça va très bien. ça marche. ça marche pas saa yi moom ça marche ah, wala bokk wala sa mbaay ah. saa yu quoi dama bëgg a jaxase àdduna mais nice ñu ngi ni sant alhamdulilah. waaw waaw mais xam nga rek dañuy jéem xew-xew lu gaañ mooy loolu. Ah. mais xam nga rek ñu ah, moom lamb toxu si na ngor. waaw gis nga mais sant yàlla comme nga rek dañoo moon génération bu fi nekkoon muy booy bool jàngal ñu bëri tey xam nga rek am lu lu mu ñu bàyyee quoi tey bu ñu ñëwee duñu def lu appliqué quoi te tey xam nga rek bés bee yegsi. bilaa la waaw xam nga rek ñu ngi déggante mais xam nga rek gestu bi mu war a gestu war naa war a mën a gën a gestuwaat parce que bu dee xam-xam bu bëri moo ko def si ñun kon am na lu ko war a xam nga rek gunge quoi wax dëgg yàlla mooy mu teg booy loxo xam nga rek gestu leen bu ñu amee làmb ñu ñëpp parce que alxuraan xam nga rek mooy loolu quoi parce que làmb daa metti yéen xam xam ngeen si dara làmb daa metti da ngeen daal ngeen jëm arène nationale seen diggante ak Alioune Sèye Junior waaw nawoon fa woon rek comme que moom moom day xaar parce que li mu non Alioune day xaar li mu xaar dafa kii say sax loolu jarul sax. ne tey lañ koy fay. Mm-hmm. waaw mais parce que comme que dana booy bi da koo saaga mais ñun dañ ciy dellu dañ koy ngëj dañ koy ngëj. ñun taxaw rek wax jooju wax ji moo di si booy moo tax comprendre lu bëri mais dañ koy ngëj de. par la force kàddu goo xam ne yàgg di wax. cocktail Molotov faaw mu dal ko muy tàkk di dem. waaw loolu baal bu civilé dina comprendre loolu noonu parce que comme que boobu léegi nga xam nga rek cool yi mu force xale mooy bëre mag du bëre de yoo xam nga loolu. nee lu raw li mu indil Mor Kankang leen di indil. waaw mais bu andi lu raw li andi Mor Kankang mooy day daanu rek incha allah parce que dafa andi lu raw li mu andi Mor Kankang daanu kon ñun ñuy gën a nekk xale bu ñëwee day daanu rek waaw incha allah nañ yàlla rek cat bañ ñoo jiitu si làmb ji yàlla may ñu yegg see jàmm baat bi wàccee la loxoom. ku man mais maa ngi nii ah maa ngi nii. ah non mais du man gars yi la. bilaay man parce que man ku bëgg a lu yomb moom doo fi jaar ko wax dëgg yàlla. ma dégg ne moo gën a yomb. waaw fii a jël avancé nga bilaay walaay ma ne ñëpp làmb bàyyiwu ma kenn bilaay làmb ji bàyyiwu ma kenn bilaay walaay. non mais xam nga rek yow yaa ko wax barki borom Touba ko dax ah. yow lim tenir mais illeeru gumb man illeeru ku gumbul la na ñëw man damay gis li may dóor dama koy xool dóor. su may daan damay xool li may jàpp daan. barke alxuraan karim du fanaan bu ñu ma ko joxee tey ñu ne ma làmb ji suba la pare na ñun entraînement rek mooy suñu jëf bilaay walaay entraînement rek mooy suñu jëf te même bu dul moom xuli keneen ku dul moom ñu ngi koy xaar. comme ñan làmb ji yëpp. làmb ji yëpp fii koo fi tudd turam rek mu ne dañ koy waajal quoi te ñun waajal ñu kenn li ñu waajal mooy entraînement kese toog di xaar barki borom Touba amuñu xaalis bu ñu dem si sëñ di ko yàq li ñu wóolu mooy suñu doole kese amul xalaat de barki borom Touba. dina leer si kanam ah xam nga rek yàlla may ñu ndam lu sedd guy si kaw Alioune Seye Junior incha allah ñu wax ko moom day xaar lu bëri cocktail molotov yi foo mu dal ko da lay dal de barki se nga jëndal xoola booy bi sax jëndal naa ko eh, booy ana ensemble bi yow ah, lañ yoruñu dama leen di dimbali di leen jox parce que xam nga yoruñu dañ ñàkk ba yàqu li ngeen gis ni maa leen di sagal di leen jox des fois xam nga mala sa mbaa ñu am luñ téye parce que yoruñu amuñu dara des fois duñ reer des fois xam nga mooy loolu xam nga mbëri rek yaa ma gën a xam mooy loolu bisimilah. waaw man instant yi lutteur laa quoi man lutteur ak mbër bokkul mbër mooy booy yu salte comme genre booy yi nii ñoom ay mbër lañ ay fils de Ibou ay Mbacké ñoom RS ay mbër lañ mais man lutteur laa quoi xam parce que je me sais parler français je m'exprime très bien en français c'est pour cela je suis un lutteur mais pas un mbër quoi ok c'est ça. nga cité si Big Mama <laughs> Parce que Big Mama, c'est un, c'est un beurre quoi. Lui, il connaît rien du tout. Il porte pas des habits neufs, il porte des habits sales. Il ne connaît rien du tout quoi. Ah Ce, sont les, ce qui font ça. Mais les lutteurs, ce sont des gentlemen. Ils portent des habits neufs. Xam, ah, des vrais, vrais, vrais Comme tu l'as Voilà, je mangeais un poulet. Voilà mon client. Hein. Lui, il mangeait que du tchèp et du tchéré. C'est ça quoi. <laughs> Khalil, t'as gagné de tey loolu tuuti nan ngeen ko aajee Siteu bu Ngor di ngeen dem aajee si yoon. non Siteu ku ànd moom doo waaj da ngay pare parce dafa doon booy bu nga xamante ne man la sambaay dafa déggal ay magam Siteu du ñëw entraînement ba nga wax ko moom mu teggi ko li nga wax loolu lay def loo ko conseil loolu lay def donc bu amee ku mel noonu doon ndaw fonk boppam bëgg boppam man la sambaay duñ man lu dul ñaanal ko cat siixlu ko rek te yàlla may ko ndam loolu rek la ñam luñ koy ñaanal mais bu dee côté physique moral lépp lu nga xamante ne mbër da koy andi mu ngi kaw Siteu te bés bi amul dara luñ si xalaat lu dul ndam gisee mu ne yàgg yàgg di duma daan leen fa seqatu ay bëreeg yéen. Ama Aliou Seye moom man la sa bu toogee ba heure bi sax naan yàgg yàgg dañuy duma dafa war a xam ne ne yàgg yàgg bawul dara te moom benn maanaam benn yoon la nii rek benn maanaam benn maanaam benn gaañ la bu taxaw si yoon mi ni rek xam nga te dara mënuñu koo teree faxas quoi dañ koy faxas jàll amuñu lu ñuy wax moom. Eh, day gën a neex parce ñun dañuy jure. lébu ngay waxal de ñun dañuy jure ku ko weddi laajal bële yi <laughs> dañuy jure de <laughs> ay. lamb dafa toxu si ngor léegi samedi ak dimanche. waaw mais xam nga rek mooy li ma la wax ñun moom man damay wax dama par quoi parce que dama naan dañ ñun dañ kontaan parce que bu dara yàgg nañ si waar wi doon ko bay te li ñu doon bay tey moom la suñuy rakk góob donc loolu mbégte la keroog dama koy wax benn gaan ma ne ko ma ñëwee open press ba gis stade bi man sama xol daa sedd li tax sama xol sedd mooy benn rêve. bu newoon si man la bu réalisé wu réalisé wul sama côté mais réalisé wu na sama rakk mu doon mbégte bu nga xamante ne ni ba ba may dee du ma ko fàtte moo tax ma koy ñaanal yàlla si bés bi yàlla defal ko ndam lu sedd guy guy guy guy yàlla na mbooloo mi yàlla na mbooloo mi gën a yokku yàlla na ko yàlla mbay ndam lu sedd guy guy guy loolu rek lañ koy ñaanal bu soobee. dégg nañ bàyyi nga nga ah, bàyyi lam waaw bàyyi woon naa nag mais saa biñ toll nii xam mbër moom am na fooy toll doom moom sa bopp te saa ñu toll nii li dégg booy di ko réunion nii takk nga ne doon nga. non takk yee soow na fekk man damaa bàyyi avant may takk gaañ mais sama jabar instant moo ma ci bàyyiwul quoi nee na foog ma delluwaat ci làmb ji. soxna na foog ma delluwaat ci làmb parce que instant je mange bien je dors bien je travaille bien. léegi si fu mu nekk. instant yi ñu toll nii bëri xamatuma leen nag xamatuma dama gëj ci làmb <laughs> ku ñëw baax na comme comme li Khalifa Sall wax rek naa bokk rek man naa bëre rek ku ñëw baax baax na. ku ñëw booy bi am benn combat sax bu ñu ma ko joxee ma bëre moom instant ñu toll nii naa bëri rek ku ñëw baax na. oh. loolu day doon combat bu nga xamante ne nii saa lii da nga ka parce que li ma wax ni daa doon loo xamante ne ma intéressé làmb ko dàq xam nga moo tax làmb ko dàq parce que papa daa ñëw rëbës doon champion rëbës 2015 2016 2017 Gourdin ñëw 2018 man ma ñëw doon champion rëbës. donc ñaari champion Rebeus yoo xamante ne ku nekk jaar nga peese ku nekk jaar nga fa ku nekk xam nga li am ku nekk jël nga fa làmb la làmb ju neex te tey bañ bëri woon man ah, maanaam mayuma sens parce que appu may victoire te mën naa koo may ay combat comprendre bu baax donc mayuma sens mais instant fu mu toll làmb boolu ñu te buñ ma ko joxoon tey tey tey dama koo jël incha allah. yéen ñett ñëpp final ngeen si biir. ñun ñett ñëpp final la ñun ñett ñëpp si nekk doon nga champion Rebeus ku si nekk jël nga fa drapeau. Hmm. fa poids lourd bëri na fa poids léger man nag rek laa fa fekkee quoi waaw parce que un an six laa fa def fekke fa poids lourd bi ma ñëwee poids lourd yi fa newoon doon bande bande ñëpp dama leen dàq jël gerte gi Gourdin mu ngi fa woon waaw ñoom ñu nga fa woon booyaay fa woon xam nga garaan génération bi nga xam ne ñoom laa fekk ndool ñoom caatu piyool ñang baalo ñoom ñëpp a woon ñoom waagi ñoom ñëpp a woon daal waaw ma yàlla def nag ma jël ko seen kaw ay Abdou bu bari ñi mu ngi fa woon Assane Tall yàlla def ma Mambala benn baraak moom laa daan final maam moom ñoo finaalu waaw xam nga kon papa bu jëlee làmb jooju da doon làmb ju neex joo xamante ne ni ñun ñaar ñëpp a nekk saako bi xam nga buñ mayantee sens kenn day génn rek kenn des. saako ngeen nekk. waaye saako boo xamante ne de gars ñu fa dugal force <laughs> saako boo xamante ne gars yi ñoo ñu fa yóbbu force tey dama lay benn affaire papa champion la maa ngi ku ne di critiquer mais mbër mënta ñàkk yenn yi te mbër moom saay dangay doon mbër ba ba ngay dee te papa mbër lay doon ba may dee tey bu ma jëlee ñàkk maa jëlee terewul champion la dañ koy ñaana yàlla tolof tolof yi mu ne mu jóge ci ñu ne tolof tolof yi ñu ne ñu jóge ci papa champion la daa mën a bëre mais làmba mën nga mën a bëre ta sa chance du si ne parce que làmba chaque jour maanaam ñii dàq daan maanaam ñi dàq bëre ñoo gën a néew ñi di daan ñi dàq bëre laa lay wax de maanaam ñi gën ñi gën a néew bëre sax ñoo leen gën a siiw papa dafa mën na bëre parce que PC ku fa mënul bëre doo fa jël làmb te papa ku ko xam-xam na dafa mën a bëre moo tax làmb jinne lay doon. sambul sambul bu ne da nga dafa xeewi ma xeewee mais su ma jëlee ñu ñaar ñëppay xewaat waaw parce que dañuy bëre ba ñëpp a kontaanal ba xam ne ni ñii ay champion lañ parce que gis naa bëre bi ne xeetu bëre bi. noonu la demee dañuy bëre ba xewaat ñun ñaar dañuy bëre ba xewaat ah. parce que dañ xeewi mais dañuy bëre ba xewaat. lu garaaw loolu na taxaw rek xool. Ah. amul ragal. nga loolu xale bi dafa mel ni. saan ma ngay sotti di dem de xalil soo ndox ma ngay arrosé de ay ma ngay arrosé ma ngay sotti di de mbete ku nekk ci tool di arrosé naana ma ngay sotti di dem booy baal ma ngay retaan booy respecté ma booy gis nga ko xalil ajan ndeysaan mbokk yi xale maa bëgg a xool fële. xar borom xar puusal borom bi moo yor xaram tuddee ko lu ko neex les coqs ou bien saan xalil gis nga gis ginaar yaa ngi noonu dugub bi bool bu def ndox xalil dafa mel ni xar maa ngi ñëw xalil daa mel ni xar maa ngi ñëw xalil daa ni xar maa ngi ñëw xalil xalil daa maa ngi ñëw xalil xalil maa ngi ñëw sama xalaat yàlla bu ma nax waaw xalil sama xalaat yàlla bu ma nax ndeysaan glace yaa ngi noonu ndeysaan glace yaa ngi noonu di dem ndeysaan loolu banaana la foroon déggal naar nee na mbuus tur naar. bu doon Tamba. Sall naar dugal. booy puus leen. maa ngi noonu gis nga ko. macha xar maa ngay ñëw. Fall taful tuuti ma xool. Fall yaram taful tuuti. voilà taful tuuti rek. ndeysaan borom leket ba leket bi am na banaana. ndeysaan mango nga sa pomo nga sa. ndeysaan leket bi fruit kese la. ndeysaan. leket bi am na lépp ndeysaan ndeysaan gis nga Siteu bu Ngor dafa mel ni mooy waaj a génn nee naa la leket bi am na lépp xalil ndeysaan bu Ngor a ngi noonu may seen xalil si biir ndeysaan mu ngi may mu noon may si biir nee nañ sawaay nee nañ ñu génn waaw dëgg la saan puus leen tuuti gis nga ko Siteu bu Ngor a ngi di ñëw xalil gis nga ko fëgal bu Ngor a di waaj ñëw nee naa la moo war a laale suba moom ak stade moom mi nga xamante a jàkkaarloo moom moom na sax moom foog la suba la war a bëre mais waaye nee la deret day sot sa koy jur Badou ñoo ngay sarax ya di génn benn par benn foog la gis nañ ci saan nee na am na bis. nee naa la bisu doomu ndayam nee jur. ndeysaan ndeysaan. la lu dagg lu ne morom ma lay fekk. Ngor Wakaam Yoof Almadi Taraawo fukki penc yeeg ñaar tey lébu yëpp ay génn. nee naa la kii mooy Siteu bu Ngor. nee la kii moo bëre woon ak caat kii moo bëre woon kii moo bëre woon ak bébé bismi ne fa yam mu ne déedéet nee la kii. bëri nag ndaanaan lu ne waaye day bëri Alioune Seye junior ndax boo nee Alioune Seye junior sa xel day dem si sortam bu muy cocktail Molotov bi faaw mu dal ko oh. cocktail Molotov euh, diggante mag bis waaw gis nga na combat mu tenir ba ñëwoon coow la mu a ki nga xamante ni bokk waaw da ngay xool Alioune Seye junior ba mu fay mujj diggante moom moo kànkang <laughs> dinaa la nekk combat la. dama noonu moom la jeunesse. waaye fëgg la bu ngor. la fàttali ne na bés. ndeysaan ma nga noonu am na lu naa nee naa la dina dina. ndeysaan booy. la soo ko sama pitax yi. booy jox nañ la xontu. la ginaar jox la lekk. sama xel ñaaw xalil dama xel ñaaw na. ndeysaan naar naar dafa jox dafa jox booy bi xont bi jox ko ginaar gi sama xel ñaaw. na ko bu mu xiif. waaw jox ko xont. sarax ah, ko ginaar na gi xiif. waaw loolu mooy bu ko yóbbu dibi. déedéet. sa waay la wala. sa waay lii pitax la wala. du pitax xar la. booy bi nee na du pitax Alioune kaw. gis nga ko ndeysaan nee naa la mi ngi ànd ak Sika Mbaye bu mag ba ma ngay sotte ko dilit ba ah, laa illallah cey lamb ak lam lambo nee naa la nee naa la xoolal fëgala bu ngor fàttali ne sax moom am na bés fëgala bu ngor fi ñu toll nii boo ko laajoon kan kan ngay bëre sax xamu ko fëgala bu ngor boo ko laajoon kan ngay bëre moom xamu ko fàttali ne am na bés ndeysaan moo tax mbokk ndey koy jur gis nga ko mu ngi noonu moom Siteu bu Ngor jox na ko ndeysaan ay lamb ak lam lambo xale daa mel ni mafia bi gis nga leen Siteu seul yee billaay wallaay borom yokkal sa njëg ñu jaay la yow yokkal sa njëg ma jaay la Aliou Seye yabay la on n'est yaa nga sax saan mu ngi noonu moom Siteu bu Ngor nga ko Siteu bu Ngor ak noonu xalil gis li muy def dégg li muy def muy def barke yombal xiyam loolu Cissé junior ni ko xale yi di waxee rek nee na xaw ma cocktail Maratos bi xoolal ma si xale xoolal ma li si xale nee naa la tey doomu ngor bi doomu wakaam bi doomu yoof bi doomu fukki penc ñaar yaa ngi noonu moom Siteu bu ngor nee naa la lépp lamb la muy lan naar ndeysaan dama gis si bu ngor génn ndeysaan xale yi topp ko li dugg leen ci moom waaye tey dafa taxaw ci buntu jumaa ja taxaw ñaan ñu ne déetaay mu taxaw ci buntu armeere ñaan. xanaa naa a ñëw sama yaram daw. chaque jour noonu la chaque combat ci Siteu bu ma lii ci mbooloo. ci xale bu ndaw. néew na ci xale yi loolu ak moom jamono ñu koy génnee. ndeysaan ndeysaan xoolal ma glace ya. lii bu doon Tamba mbuus 3000 la glace gi. loolay glace. Oh. glace gaa nga jàmm la. waaw ah, waa nar li lan la waa nar li lan la waa ngor a ngi nii ah. a ngi nii yaa garaaw waay waay laa bëgg doon dinaa la nga xali nga ne dégg nga ne Siteu la ñuy topp ndeysaan jëlal xale jëlal defal nii defal nii defal nii kon ndeysaan jëlal ndeysaan Alioune Seye day xaar billaay walaay taalaay su la tee toj sa joobu na ñu keneen. mais gin ziar. waaw doom yaay ñu ngi lay bëggee. waaye sant rek. tey daa mel waa gisoo ñëw pour gunge suñu rakka rek suñu deret suñu mbokk quoi aussi suñu booy tamit. waa doom yaay. waa gisoo Ngor yow Wakaam Almadi Traoré Ndaayaan Tubaab Jalaaw Tëngéej gaayam ñu ngi si ginnaawam ñun ñëpp génn nañ ñun lébu gi. doxu si samedi ak dimanche waaw samedi ak dimanche gi mënu ko bañ suba fëgaloo la tamit encore tamit noonu lañ koy gunge quoi ñoom ñu ngi seen ginnaaw quoi ndax bisu lébu yi la. Alioune Seye ngeen am de Alioune Seye junior ngeen am. waaw Alioune Seye junior expérience waaw mais dara ñun ay xale lañ te làmb dañoo wuyu si te boo xoolee xam ne du caaxaan booy bi dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla musal si car rek loolu rek lañ koy ñaanal mais à part ça yàlla na ko yàlla taxaw bi ni mu bu ñuy ñëwaat mu gën a nekk quoi ndax mérito na ko. lan nga Siteu mën nga taxaw xeex booy bi man na lu raw loolu mooy li may wax rek booy bi dafa yàgg di bëre mbapat ñun bi ñuy bëri poids lourd boobu mu ngi si poussière bi gars yi kenn tegu ko woon mbër moo tax làmba lu mu si def rek da ko mérito ndax da say yàgg ci mbapat mais bi mu duggee arène yàggul mais booy bi dafa galère si mbapat moo tax boo gisee xale yi ko topp nga xam ne ni du caaxaan quoi xale du topp ku xamul dara ta amul temps ku amul jom. ndaanaan la. waaw gin bu yof mu ngi si la mu ne woon rek. kon nekk sama bopp daal pour le moment daal mooy loolu quoi maa ngi di entraînement tamit nekk samit su suma wérgu yaram daal. lan lan lañ mën a xaar si gin bu yof yan adversaire lañ mën a xaar si gin bu yof non pour le moment mënaguñ mënaguñ tuddee adversaire quoi ndax foog ñu nekk suñu bopp ba pare koo fi tudd rek après day am lu muy préparé quoi bi nekkaguñ si loolu quoi. retour ak Guine bu waaw nañ ko xaar trop tard day am parce que ñun làmb ñun làmb lañ am mënuñu bàyyi làmb ku ñu xam tamit làmbaataa nga xam ñu quoi ah, kon ñun làmb mënuñu ko dummóoy mais tamit am na foo xamante ni boo fa tolloo danga ngay reculer nga xoolaat sa ginnaaw xoolaat li nekk si bu baax a baax xam ni dafa am ñuy topp si yow kon am na yoo xamante ni waru la bu yàggee dañ lay teg cuune te doo cuune quoi waaw moo tax c'est le moment ma reculer xoolaat suma bopp bu baax a xam ni man jàmbaar la loolu laay bañ a xañ suma bopp nag quoi jaajëf gaynde gi rafet na gis nga ko gis nga ko mu doole molotov bi day jóg rek taax par kese. sëfër tëraay 35 dañuy yi sabarte waaw waaw si te yan na daan waaw dañuy sata waaw gis nga waaw waaw si waaw si te yan dana la koy wante ndànk rek dal daan ka nu ñibbise ndi yóbbu ndam bi ngor waa ngor waa ñu indewil lañ jógee indewil lañ jógee ba fii ndax si dëgg sa wit ku dee sa yaa juraat bi laa tey lamb ak lam lamb Xalil gis nga Siteu bu ngor mu noonu ndeysaan fëgg la bu ngor nee naa la ngor yëpp ñu ngi noonu gis nga ko nee naa la xale bi ba mu duggee si lamb ak léegi yàggut waaye def na fi lu ne def na fi lu ne bi mu duggee si làmb ak léegi yàggul de waaye def na fi lu ne ndeysaan gis nga ko ngi noonu di soox di ñëw loolu ngor a ngi noonu ndeysaan doomu ngor baa ngi noonu doomu ngor baa ngi noonu moom Siteu doomu ndeyam fëgalaa ngi noonu ndeysaan gis nga loolu